moo newul vingt heures trente. Doudou sama force nga. Doudou sama force nga salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa lay doon gis sama force nga quoi. yee dëgg la kay naka ma sant yàlla. yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. ku def vidéo yàlla ak yow la. comprendre nga dama bëgg. mu leer na comprendre nga kuy def vidéo ah. yàlla ak yow la bi ma lay seetaan yàgg na mais du fi la nekk mais infli waxtaan naa bëgg dem laa doon waxtaan si si preuve ku tudd preuve preuve ah waaw sama gars la ah, dama ne Doudou lan mooy secret lan mooy sa secret ah? am talent bu baax man soxoruma da nga am talent boo xam ne dama lay tiifu. dëgg la comprendre nga dama ni Doudou. bu mu ñàkk fayda preuve laa ko wax ma ne ko bu mu ñàkk fayda bu mu def fenn youtubeur bi bu muy def youtube kenn deful kenn deful youtube comprendre nga lan moo sa foofu. ah lan moo sa foofu. bon wax dëgg yàlla nag xam naa ne mën naa ne yàlla la quoi parce que. gisuma a laal bi loo xam ne war naa fi mën a kii quoi fu nga rek mbiru yàlla quoi yàlla moom dafa quoi bi moom neex na de yàlla gisee TikTok bi yàq affaire léegi TikTok dafa dafa yàq may ñoo xam ne war ñoon wax ñu may leen jox leen micro wax leen moo tax lu leen neex la ñuy wax hmm. damay mer wax xam na loolu moo tax des fois du ma ko dugg sax gis a affaire yoo xam ne amul sens gars yi comme si ragaluñu yàlla mooy loolu mais nañ ñaanal Sénégal rek loolu am sëñ ba Sénégal moom Sénégal comme sarax. non keroog dama waxtaan ma ne kii jàng la ko kii. Sénégal comme sarax. xam nga am na ñoo xam ne y a des choses yoo xamante ne man dama gis sa kanam sa sa kanam xam ne li nekk si yow moo tax keroog ma ko doon wax. gisoo mooy doon. Ah. dama jox eh, eh, mais Doudou est-ce que Karim Karim est-ce que soo paree doo may dix minutes maag yow ñu waxtaan cinq minutes. cinq minutes. mën naa waxtaan ak yow. non non. zone bu dee bi. dégg mais. mbay borom dëkk bi. <laughs> mais naka wu. waa gis nga de nag. ah tey laa lay doo gis de. waa gis nga maa ngi nii de. mais avion doo koy kala kii bi boo koy monté boo koy wax nii boo koy kii. ma de ah, ay luxus la rek xam nga rek bu ma soxla dama lay luxus nga ñëw mat nga tàllal ba foofu noonu mais yaa des de wala yow ma bàyyi mu ah yow moom dama man gisoo gars yëpp lañ sama xarit lañ <laughs> non yow baaw ma laal la non yow ma rek yow <laughs> sama xarit la mais mais naka moom waaw nice de mais naka affaire yi noo noo noo koy dundee waaw gis nga affaire nice de en ñun ñu ngi TikTok bi ñu si kii daal ñu ngi si daal di mm-hmm. bégal gars yi mm-hmm. gis nañ ne gars yi bëgg nañ li ñuy def aussi tamit. moo tax ñu ngi teg lépp tamit si yar soo waxee soo ñi nga xam ne ñooy jàng dañ naan TikTok dañ ko fee war a jëlee parce que day yàq xale yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si TikTok bi di si dundee est-ce que jotul tey ngeen def réunion ay comme ni nga defee groupe TikTok nii xaw ma tiktokeur yi ak kii ngeen ngeen ngeen lancé benn message boo xamante ne képp koo xamante ne da siy kaa mu ngeen fexe ba signalé compte am mu génn parce que ñu ngi siy yàq gor ñi ñu ngi siy yàq nit ñu baax ñi ñu ngi siy yàq ñëpp. ba xam ne TikTok moom daal. Eh, sa pa sa passeport doom. kon avant dégg na sa passeport doom nga yor. Ah, moom la ah, mais mais nag li ngay dawal seer na nag avant. laaju ma eh, dawal seer. <laughs> mais Mbaye mais ah. Ah, nee la laaj eh, eh, passeport doomam la yor ko wax. Mbaye TikTok ceebu jën la mhm. jën arrangé ku nekk li la arrangé ngay dagg ña fay saaga ñu ngi fay saaga ña fay wax. non non mais ñiy def live si guddi ba jant soo yàq nit ñi il faut loolu est-ce que du yéen ñi nga xam ne ah yéen a am doole si kaw yi nga xam ne ay 2 millions def yi ay ah, abonné am ñi nga xam ne ñoo am ay est-ce que jotul tey ñu def réunion ñi nga xam ne ne pour pour ñi nga xam ne ñoo fay def ay kaa xam nga ñooñu tamit problème bi mooy kenn da leen mënalul dara quoi parce que ñoom seen téléphone la yor man ni ma ko yoree nekk sama ginnaaw téléphone mais ngeen signalé comme li ngeen ñi signalé yi ngeen loolu la comme gars bu dee mën nañ leen signalé dañ leen signalé kuy saaga si TikTok bi ak wax na loo xamante ne wax na ko Doudou Doudou fait des wax na loo xamante ne lu intéressant nee na fi mu nekk nii waxukaay dafa yomb jot na tey ñu ñu ñu dëkk bu développé. day am TikTok day am maanaam ñooñu def loolu ñun la ñu war a sensibiliser bañ changé format bi ñu koy defee. mais ah. TikTok am na ci dëkk yu avancé yëpp. Ah. te Sénégal ni ñu ko noonu. Ah. dañoo képp kuy kaa wala ngay def lu bon. comprendre nga ñu ne gars yi def nañ ko tey bu fekkoon ne TikTok ku ku neexul ku mu maanaam ñiy def lu baaxul bari nañ fa quoi mënuñu faa jëlee ñëpp lii kii kay mooy wax ak ñoom ñi koy def ne leen ñoom ñu li ñuy def ñu xam ko dañ seet ko dañ xam ne àdduna lii yëpp ay yëpp ay jeex quoi te ku nekk sa bés day ñëw nga dee comprendre nga ñu fàtte loolu yëpp loolu moo tax ku fay def nga mun faa def lu rafet mais tey jii nit ñi mënuñoo toog ne yow mbay da ngay bàyyi li nga def forcé nga def ko te ñun mënuñu la juruñu la quoi tamit yow li ngay def yow la mais ku fa nekk xam ne yaa ngi fay def lu bon soo ko mënee bàyyi nga bàyyi ko moo gën parce que tamit tiktok bi heure ñëpp ñëpp a fay dugg paa yeeg kilifa fay dugg moo tax lu fa waari def na rafet quoi moo xam tiktok ak fu mun di doon quoi duudu li mu wax noonu la tiktok ñu ko man xam nga maa ngi fay gis sama bopp mais bu fekkee lu ñaaw fay am nañ ko bloqué tey ñëpp bokk si yem gars yi dellu si liñ nekkoon loolu la rek ah gars yi nañuy def lu rafet si tiktok bi inspiration nekk ak sa job rek comme ni nga koy waxee maanaam tey su ma waree defal mbay vidéo guddi bi damay seetaan mbay daf may dimbale lu bëri man tamit damay xam lu xew si dëkk bi parce que ku nekk dama lay déglu léegi mbay li ma soxla ci vidéo yi li ci des nag loolu bopp la maanaam yombul quoi si benn côté parce que tey bëgguma mbay li mu doon wax ma wax ci ak moom dama koy bëgg suñu waxtaan man ak moom mu nekkaat ci leneen du bokk ak li mu doon wax loolooy waral moom bu ko seetaane di jaaxle dinaan waa kii man woon lii kañ laa wax lii question bi ma koy posé loolu mooy tax muy waru di ki quoi lol la loolu la rek mhm. ok ñu bëgg xam da exactement yan yan yan yan avantage la ci am quoi parce que parfois nga def vidéo bo xamanteni bi yow da nga ci gissa bokk ci avantage yan avantage nga waaw mooy maanaam nit ñi dañ lay xam bëgg la lol la rek comme ki yoy la la mëna jural comme yu mel ni tey maanaam lu ci ëpp fo bo démé tay fo xam nit ñi dañuy rang di sonn yalla mëna la dimbalé yow ñu gënné la yombalal côté yoy dal mais côté bu dee ay côté xaaliss mom TikTok man oo ma si xaalis koo mën ak keneen. Mm-hmm. waaw man maa ngi ci sama côté beneen business bi. ci côté vidéo yi est ce que mën nga ci ma sax ma ko ma ngi jégalu parce que ñoom xam nañ ne ñi defal ñoom ñoo koy gën a bëgg ko sax nit ñi parce que ñu bëri dañ may woo pour man ma def leen te dama koy faral di wax ku ma woo ku ma def la danga may fay balaa ma lay def vidéo su fekkee nag da nga toog xaar sa tuub mën naa xëy rek def la mais ku ma woo def ma moom danga may fay loolu moom leer na ko. macha allah jaajëf ñu ngi lay jaajëfal frère ñu ngi lay jaajëfal.